Thank you. mbokk xarit yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu am mbégte contenté ñëw yéen seen euh, première chaîne de la banlieue di IM Télé International Média TV. tey nag ñu am mbégte bu baax a baax mbokk xarit yi ñëw yéen seen euh, premier numéro seen émission bi nga xamante ni ci wàllu lamb lay wax ñu koy wax euh, secret lamb tey nag mbokk xarit yi ñu fi dalal koo xamante ni yaar na champion la kenn du ko présenté si l'amb. ndaxte bu ñu nee ne secret. loolu la waral tey émission bi nga xamante ni tey mooy premier numéro ñu tuddee ko li nga xamante ni moom mooy secret lamb ñu dalal fi nag benn champion bi nga xamante ni euh, yaar naa yàggul dara gis nañ jaloore bi nga xamante ni def na ko muy euh, Thiatou Walo mbokk yi tey nag si li nga xamante ni moom lañ fas yéene waxtaanee tey. parce que gis nañ actuellement ni làmb ji bu ñu xoolee mën nañu wax ni presque léegi mu def un mois wala sama ëpp ko tuuti gis nañ ni làmb amul. bokk na ci li ñuy wax waxtaan ak moom ci jafe-jafe làmb surtout ñoom ñi nga xamante ni actuellement nii mën nañu wax ni ñi si seen buntu carrière. waaye li ñuy def rek mbokk yi balaa ñoo gën a xuus ci waxtaan bi rek dama koy bàyyi mu nuyoog internet yi ñuy seetaan su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi champion Thiatou Walo maa ngi lay nuyu di am mbégte bu baax a baax ci tey ci tey li ñu seet si maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu ñuy siiwur télé bi yëpp IM Télé TV naan onze bi laa bismillah inni wala la jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba ginnaaw bon sant yàlla julli si yonte bi sant suñuy ñaari waayur di ñaan suñu waayur yàgg fi lépp ak ki am yéen yéene sa waayur rek di nuyu sama xarit Abdou Cag Cag mi ma àndal di nuyu nongo suñu Abdou Karim di nuyu mafia bi ñëpp di nuyu waa Gunaas staff bi maa ngi nuyu ñëpp di nuy Ama Dia moom bi ma ñëwee fii yàlla ak moom a tax borom Mbaaji Pël maa ngi koy nuyu di nuyu waa Mbaaji Pël borom dëkk mbay Laay Bamba waa Mbaaji Pël yëpp ñoom instant maa ngi waa dëkk bépp di nuyu fi ma bàyyee ko muy Géejawaay maa ngi jaar ñëpp waaw di jaar suñu kilifa yëpp. xam nga tey yàlla dafa def euh, yaay bi mooy premier numéro bi nga xamante ne moom lañ def émission secret lamb. tey euh, boo ñuy boo ñuy boo ñuy résumé parce que bu ñu nee làmb ne secret ndaxte làmb barina li nga xamante ni mi ngi ci biir te du feeñ mais tey boo ñuy résumé tey euh, nga wax internet dina lay seetaan kan mooy Caatu Waalo. waaw Caat bu Waalo moo ngi nekk benn doomu Gunaas juddoo Gunaas yoroo Gunaas màggee Gunaas ah di taalibi Sëñ Fallu juddu activité bëgg bëre nag bu nekkee booy ba léegi làmb lay siiwur koo xam-xam ko si activité bëre waaw. mais tey euh, dina am si dinañ dugg tuuti xam naa balaa ñoo ñëw tuuti si si si si carrière bi dinañ dugg léegi si li nga xamante ne moom mooy actualité làmb tey nan nga jàngatee actuellement nii coow li nga xamante ne mën nañu wax ni ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy dégg ci surtout si si si VIP yi parce que xoolee ñu bëri euh, bu ñu xoolee jàngat yi nga xamante ne jot nañ ko sax dañ ni sax coow li nga xamante ne moom moo am xëy na ci biir làmb yi moo tax booba léegi làmb amul ban jàngat nga ci am ñuy muy sorti yi nga xamante ne VIP yi euh, defoon nañ ko ba mu andi polémique waaw ah, lu ma si am moom maa nuyu ñëpp muy mbër mu ndaw muy mbër mu mag ah, di nuyu ñëpp lu ma si am mooy lu ma si wax moom bariwut mooy ñoom dañoo yegg ah, ban mun leen a woo ko ñoom xas nan ba yegg ban mën leen a woo ñu ñuy di ay ndaw nekk si yoon wi nga xam ne yeggagul ñu ñoo war a ràññeeku suñu laaj pour yegg man noonu laa gisee ndax loolu seen bii privée la seen vie privée la seen domaine la seen bëgg-bëgg la seen domaine la ñoom lay xool leen arrangé seen magu bopp la naa amuma kenn ku ma siy wax deug fa yalla ndax ñom yegg nan lu may reyante mooy pour ñun ñu yegg ban mën ñoo woo man loolu laay sama life man ak sama bëtt fi ma tek ak sama ngëm-ngëm moy reenté ba ñu président di wooyee ñooñu man ma ci bokk ñu man ñamay wo waye la kaa seen bi bi fii fi lan farak ak fi lan far wax deug fa yalla mom loolu concerné moom man luma concerné moy reenté ba tollu place bi ñu toll si làmb man loolu ma gëna ñor quoi waye quant à seen domaine bi nekk ak yoy awma awma jot bobu sax mais mais ñi nga wax lamb lamb lamb ci geej lamb geej géejawaay parce que buñ waxé lamb làmb mu ñu ko génné mu ñu mu ñu si génnee géejawaay mais dañuy gis ni way actuellement ni c'est un est-ce que est-ce que est-ce que euh écrit sen bir ni mu waron démé mi ngi koy démé parce que souvent da nga gis way bu fa mbeur daano da fay bari li nga dégg fofu ay ciow non yalla ay xañ jaamam ku mëna soxoré ni di yok sa bop ah. man mi di wax yow man chat bol écrit géejawaay yëpp laay dem entraînement aw ma benn sens interdit benn écrit fuma soxla entraînement fa lay dem entraînement. ku am looy dem ci nit naa ko liggéeyal ma diw moom yaakaar naa nga def ko sa bopp pour avancer loolu laa gën a gis ah waaw ndax ñu ñu wër dee jot seen seen i wërsëg ak ñu tëdd si lalu hôpital ak ñu si ñoo jot seen ñaq seen i wërsëg kon boo soxoree nit da ngay sonn ginnaaw ñu dee la ñuy ziar di leen sànni xaalis ndax seen wërsëg moo fi des si àdduna ba léegi kon looy soxoree nit pertement la mais yéen ñi nga xamante ne ay ndaw ngeen ngeen nekk ci buntu làmb mën nañu wax ne làmb am ci yéen yaakaar parfois doo leen xaw tiit ak làmb ji ni mu demee nii non man aw ma lu may tiit lu may tiit amul lu may tiit de ilaa nafsin bi laa daree ren rek wërsëg mu ngi fépp <laughs> moo tax jaru may tiit ah di yàlla bind sa jéem moom ala kulli aali ngay raam ak ngay dox ak nga sil maxaa nga gumba yëpp suñu borom dina yegsi dañuy ñaan kay anim bi rafet rek waaye dina yegsi moom hmm. waaw parce que soo déggee man la est-ce que doo leen tiit parce que dañuy gis ni actuellement ni làmb souvent euh, gars yi communication bi ñu ciy bi ñu ciy dugal dafa dem ba nekk loo xamante ni dafa xaw a dafa xaw a parce que suñu xoolee tey bu demee tey ba Balla Gaye 2 muy Modou Lo muy Eumeu Sène muy Boy Niang ah muy Gris Bordeaux mën nañu wax ne ñoom ñi nga xamante ni tey defoon nañ seen point de presse boobu bu ñu demee ba ñoom seen ay supporters taxaw ñu gis carrément ñu leen di saaga est-ce que yéen ñi nga xamante ne ay ndaw ngeen nekk ci làmb doo leen tiit parce que lu tax ma loolu mooy kenn xalaatul woon ni tey dinañ gis ku dëkk jàmm gën taxaw di saaga Siteu kenn xalaatu woon ku dëkk Parcelles taxaw di saaga Modou Lo loolu ngeen gis yéen en tant que ndaw est-ce que parfois doo leen toog ngeen tiit xam nga lu tax du ma tiit wala may jaax si boobu ñoom dañoo seen laaj ba nit ñi bëgg leen ba ñu yegg pour ba seen i preuve ba yegg ah, ba yegg ba dégg daal ñun ñi defagul dara ñoo war a reyal suñu laay teen ba dégg daal ah man gëm-gëm boobu ak exécutif bi la waaye en tant critique mbër mu mag wala kii nii man wax franchement parle man caat bu waalo du du sama domaine du sama yoon quoi ndax bu du dara sekk naag ñëpp jàmm aw ma see kenn xaar ma yàlla wala lii ak lii déedéet bu làmb trois heures morom la yenn saa yi nga am adversaire mag yenn saa yi nga adversaire bu ndaw ku ne ngay soxla te man sama ngor may ma ma taxaw di yàq mbërëm mag dara ëllëg ma soxla man bëgg naa chaque jour lu may wax fu ma toog boo nee diw yaa wax lii ma jaarat na maa wax lii. mais en mais boo leen toog parce que xam na ne. wax ba am solo laa la wax de ñoom reyante nañ ba seen supporter da leen saaga. ñun nag amaguñ supporter buñ saaga dañoo war a reyante ba ñuy saaga comme ñoom ñu xam ne yegg na yen en tant que mbeur do len tit parfois buñ len leen non lamb ngeen jute ni sen support dinañ dinañ dugg stade. non du tit par rapport ak li xaw si làmb ji. xam nga luy tax tiit ji day defaru rek luma wax rek fi ak 2 ans ñun ñoy ñew ñom ñoy ñoy ki kon 2 ans ñun ñi dess ni ñu ñow war rend rent suñu laay ba bok amagul ko fi amul ñu fi dess ay 3 ans ay 2 ans mo len fi dess ñu 3 ans 3 max kon ñun ñi dess ci ginnaaw ñoo war rend rent suñu live waaw ñun bëgg nañ buñ suñu départ ak suñu muju yëpp rafetna waye en camp man may mbër di xaxal mbër xanaa loolu kon man fii laa man ma xaxal mbër moo tax sama domaine nekkul si yoon si si si domaine boobu quoi dama see maandu quoi mm-hmm. l'essentiel daal doomu aadama bu moo yor xolam bëgg ko neex na bëgg waaye man moom du ma kenn li ma war maa ngi si entraîné lekk ba suur ñëw tëdd nelaw jàpp sa moo sa ñaambur nekkuma si benn domaine mbër nekkuma si kër mbër jëwuma kenn lu ma bu waaye wax foo ma woo jusqu'à fu ma ñëw waxaat ko fa man daal noonu laay dundee quoi mais tey noo jàngatee noo jàngatee li nga xamante ne moom mooy moom mooy làmb parce que actuellement ni machallah bi nga defee sa sortie mën nañ wax ni yagul tay euh, nan nga jàngatee lamb mi nga avancer wala lamb avancer wala lamb moo ngi avancé moo ngi am avancement bu baakha baakha baax a rek ben xawa xawa balamé touti balaame tuuti muy arène nationale baax na waaye benn stade mënu surveiller mbeur yépp quoi te promoteur dañu xawa bari journée day tardé bu ñu mayoon yeneen stade ku ci mel stade Amadou bari bu Guédiawaye ñu koy ubbi walé mbeur di ci bari ay yenen stade xawa jégué quoi. dina arrangé ak lu làmb quoi waaye benn làmb centaine de promoteur di tëgg di xaar date day xaarante entraînement ak ni mettee nga lekk avance ay 6 mois ay 8 mois wala 4 mois dafa sore quoi. Mm-hmm. mbër mu ndaw bu bëree war naa toog bu dee moo ngi entraîné bu bëree weer war naa toogaat 2 mois mu bëriwaat. Mm-hmm. loolu may a yéex quoi. mais souvent ñu bëri dañuy kaas ne mbër mbëri ndaw yi seen cachet yi ñu leen di fay baaxul parce que souvent da ngay fay mbër bu ndaw benn cachet si préparation làmbam pratiquement li mu ciy defaat moom mooy ëpp loolu. est-ce que japp nga ni cachet yi fay mbeur ndaw jotul ñu yokk wa lu ñuy fay mbeur mu ndaw baaxul waye nak affaire bi gëm-gëm la ak liggéey rek bu mag bo gis bu ndaw la woon. Mhm. te bala nga bala nga utiliser ñu ngi utiliser nit ñi faa ñu utiliser la ba paré faa nga am gëm-gëm bob ba paré xam ne ñun faa ñu utiliser ñu dogu mëna jot liñ bëgg. tok diko netali champion ñoo ñu gënoon metti fu ñom ka ñom 40000 la lañ doon fay jox leen avance 20000 te ñoom dañ doon dóorante koñ ba koñ xam nga ne kon gën a méttale ñu yegg ñooñu ñooñu gënoon méttale mm-hmm. léegi mbër mu ndaw neex na lay fay cent mille jox la quarante cinq mille avance boo si fay si làmb si kenn ko ma jox la billet yaa ñëw na ko damaa bëgg ay billets damaa bëgg bëri mën naa jaay nangami billet boo ko waxee day yëkkati jox la rek promoteur demul si kenn na ko jox ma billet yow yaay bëgg sa bëri dem si promoteur bi yëkkati xaar jox ma jox ma jox ma yow bëgg a bëri ak yow mii ne exemple promoteur bi tëggal ma maa yow yëkkati benn 300000 jox ko na ko dama lay jënd billet ay billet billet loolu moo ko indi de billet billet loolu moo ko yaay bëgg a ba jël say billet rek waaye fi amul benn mbër bu mag bii bëri ñun ñi nga ñuy proposé billet dañuy waxaale bu jubóo nga fay ñu bëri bu neexee tamit ñu jël nag ay bolok pour suñu supporter saa lay def stade yooyu jaayal la ko remboursé la sa xaalis waaye la kaa moom ni day bëgg bëri rek la ma lay wax rek mbëree defar làmb si benn côté ñooy yàqar làmb mais mbëri nan lañ yàqee làmb mooy yi ma lay wax nii ay bieg ay yune bëgg olom njaay nee na guddee bu guddee bu la taxawaan mbaam mar naan bu mu la taxawaan naan naan póotin ku yàgg si naaj bi ker fekk la fa nekk la la war rek la suñu fàllu waxoon ku nekk si yoon we neex yóbbaal la nekk yoon rek loolu la rek amul beneen ah merci beaucoup mbokk xarit yi ah, di leen fatali sen sen émission hein ah, secret lamb tay gis ngeen machallah tay euh, champion bi nga xamanteni hein ah, mom lañ fi dala muy bu walo machallah kaddu mu wax amna solo waaye tay euh, dama bëgg nag ñu dugg si carrière bi. non carrière bi bala ñu siy dugg ma ngi sante ko ci melni maître Dan. ba Abdou maître Jalikan. ak séeréem Roqe ma ngi koy sante bu kilifa la sama xarit la. di sante grand Andaw Ndiaye talibé mam Cheikh Rafal grand Andaw Ndiaye ma ngi koy ñaanal suñu borom yok ay xewulam yok ay guddal fanam musuma bëri mu neenal ma maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg suñu borom defal ko di sant Pam Mama Fall maa ngi koy sant bu baaxa baax Pam Mama da ci japp di ma dolel di santale mbës bi école balagay ma ngi sant Pam Mama ñooñu waaw sama grand papa ci étal nak maa koy ziar baax nan ko grand bi aw ma sa fay ndax yaangi japp ci si carrière bu baaxa baax ma ngi lay ñaanal suñu borom yok sey teranga guddal so fan wa di ziar ñëpp bàyyi ma sira xaal loolu rek après mooy gërëmaat waaw merci beaucoup mbokk ya muy euh, lu am euh, solo tey euh, bu dama bëgg ñu dugg si carrière bi ndax ndaxte macha allah euh, buñ ne caat bu waalo li ñuy wax mooy bëre waaye soxor <laughs> mais caat bu waalo caat bu waalo euh, dañoo seetaan sa sa sa combat ak sa dernier combat ak ki nga xam te mooy Mamor bu Fass. waaw mais li nga def garaaw na de. <laughs> waaw làmb la rek làmb moom li ñuy wax da ngay préparer préparer lépp teg rek booy bëree moo tax ñu bàyyi suñu activité yëpp. Mhm. man dama doon liggéey da am xaalis defar ay dàll. di gañe xaalis bu bari mhm. làmba tax ma bàyyi yooyu lépp sacrifier sama bopp ngir làmb ko lu làmb war da lu mu laaj dama koy def mhm. su may dem guerre nag du ma bàyyi benn arme lépp laay yóbbu. mais mais lamb yan sacrifice la laaj parce que ñëpp xam nañ lamb dafa fiir yan sacrifice lamb laaj. lamb nga egg fi ni koy waxee. nga bëgg a yegg fu mu ne nii. Mhm. du booy bëgg doo ko bëgg. doo bëgg jigéen benn. ah mais loolu dina yéeme de. Ah, par force boo bëggee dem si lamb ndax. ndam ci yàlla maa ma ba yàlla ko yàlla yërëm da wax chaque jour booy reyante di nekk champion. ngay daan combat bu rafet di ñew ngay daan combat bu rafet di ñew yaay gor gor bu rafet bam am ñew ñëw. dégg nga wala déggoo. si bu ba suma daane ni ni nii daan kenn ngay gis kene ko ñew ne dama bëgg ni bo dee da ngaa ba di yam ci mom rek si ñoy ngay yam waaye am sa gëm-gëm am sa pass pass na war nga mën a liggéey ba ba yow yaa sa bop ñu la gënal lu gëm-gëm bop la. sacrifice sa bop ngay def ci lu bari. denc sa bop pour defar sa carrière. mais est-ce que dina yomb Sénégal nga nek ndaw siw di bëre di daan nga xam ne ñëpp dañuy ñëw yomb. bañ a yomb sacrifice parce que gars yi man su ma jëlee sama 20 000 ñëw ba non champion. waaw xam nga la xam nga si ñoom yomb gëm-gëm la xam nga man du ma jël sama 20 ñëw ba si yow di la ñaan nga bindal ma arxuraan na ma sangoo ko juróom-ñaari fan su ma fóonee si diggante bi yorataloo ma saafara tàqal naa ko sama bopp ak dëkk bu dëgër bi gëm-gëm la rek loo muñ mu jeex noonu laa ko jàppee ah du ma jël sama 20 000 dem ci sëriñ ma ma ma ñëwaat naan damay nangam ak nangam du lu may xalaat sax sa kanam laa teg sama bët. soo amee xaalis ku ma bëgg sa bunu ko bil ma. mais tey boo ñu ñëwal tuuti si sa mbapat parce que parce que am na luñ liñ ñu si jot wax boo ñu ñëwal tuuti si sa mbapat ndaxte xam nga tey dafa bëri mbëri yi nga xam te ne xëy na peut-être dañuy gudd rëy rek dugg ci làmb mais dafa mbëri ñi nga xam te ne dañoo mbapat ba ba àgg dugg ci làmb boo ñu ñëw tuuti rek nga résumé ñu sa parcours. non man moom jamono jamonoy booboo korket ba léegi maa ngi bëri. ba ma nekkee booy laa dala bële sama grand yi koñu di ma tegal jël naa paquet ko koraket paquet biscuit figi dërëm gorosu suukar sabu million daal la jëlagul te dem na ay final million <laughs> waaye loolu bépp teraanga daal ci laa waaw sant yàlla ci lam moom. sa première sa première bëri champion bari lam mais sa premier combat arène parce que tay ñep xamna ni euh bari simple ak arène amna différence ce premier combat arène nan ko ko préparer ak pression bi ni mu démé won non mo pression un premier combat arène ay ngi ba pat normal di génn di wal yaani di dem di bëri ñu may xeex may ànd man kese ak sama benn booy teel a sama bopp liberté ak fit quoi. bi nga dugg si lamb lamb lamb bu lamb bu njëkk mbër da ngay am mbër day am mer gunge mer gunge mooy say xar ngay ànd ak ñu lay saagaal mbër bi génne mm-hmm. paaka mm-hmm. nga nga fi ara ñu ko nga dem mm-hmm. man évité man kese maa doon ànd di sama di fayat sama bopp di fëgg mer di limeegee mais mais bi ngay bi ngay tëb di dugg si lamb parce que ñu xam euh, nan la demee woon ak say parent d' woon nañ ci d' accord ñu ci nan nga leen convaincre convaincre non man damaa judd am nattu boobu métier bi ma liggéey mi dafa daal bëri ma fa yóbbu man jotumaa jàng école nattu bëri laa amoon quoi damaa judd fekk keppaaru mbër ay ñoom Alioune Seye 2 ay ñoom Grand Alam daa bayaal bi quoi nekk secteur mbër mm-hmm. man ma judd bëgg bëre domaine bëri laa doon def maanaam dama doon bu ba ma jotul takk baas sax dama doon ut takk wala si ut ay ay ay darabin sànni si mbale bi mm-hmm. takk ko dem mbabat booy ñëw bëri ganaa combat kooku man damaa yàgg amu amul bëre quoi. Mm-hmm. yi nga yi nga xamante ni nga ko def ban combat la ci préparation bi metti woon wax dëgg fa yàlla bi ma jugee ak bi ma jugee waat yëpp sama préparation yi day metti moom ndax amul su su may entraîné ba du ma entraîné pour benn adversaire quoi damay entraîné pour ñaari adversaire damay teg sama yaram loo xam ne bu ma ñëwee maanaam ndam yàlla moo ko yor waaye entraînement moom nit moo ko yor ay supporteram. non xam nga mbër parfois dina jël combat xam ni combat bi mu jël nii tey am na adversaire. waaw mooy li ma la wax. Mhm. ndam yàlla moo ko yor waaye entraînement mbër moo ko yoral ay supporteurs yoral ay supporteurs am mooy nga sumee ko ñu ne gongo kii pere na waaye ndam moom yàllaa ko yor. mais ci combat yi nga bëri ban combat moo ci gën a metti. ban moo ci gën a. metti metti. Mhm. sama combat maag bu ma gisoon mbay metti woon na de. lan moo lan moo taxoon mu metti. waaw boobu suñu quatrième combat la woon ku ne daanuwul. bëri nañ ba temps bi deux minutes laa koy doo ko daan xeex nañ xeex bu métti bëri bëri bu rëy sax. Mm-hmm. waaw boobu métti woon na tamit waaw. mais tey euh, bu ñu ñëwee euh, ci ci ci ci euh, tey ci làmb parce que actuellement ne gis nañ ni combat yi commencé na taxaw yow jooy nga si victoire bi nga xamante ne macha allah bu ñu xooloo combat bi d' abord man comme sa combat ak ki nga xamante ne moom mooy Mame Mor da nga gis arbitre sifflé Mame Mor di arrière yow ngay dox ci kawam. ngay dox ci kawam ba dóor ko ñaari coup coup yu dal bés mën nañu wax sax presque. ku yooyu nga ko dóor presque mën nañu wax ne moom moo ko daaneel tey euh, combat boobu nañ ko ko préparé parce que dañoo gis arbitre privé nga ñëw ci kawam. waaw dama kaa préparé maa ngi nuyu ñëpp nag di nuy sama coach ñoxor box bi ay champion d'Afrique la ma doon boole dañ ma dañ may dóor bu ma ñibbisee du ma lekk ay boxeurs yi rëy yi ay ring maam préparé bàyyi mu benn côté ah lépp laa dem entraîné ñëw teg ndax guerre laa jëm ni ma bàyyi benn arme. Mm-hmm. indi naa bëri indi naa xeex pour man sax du ma ah, lamb ji bëri laa si gënoon favoriser pour man dama koy jàpp ñu bëri ma daan ko yàlla moom noonu la ko soobee woon rek muy nit ku baax di nit ku ñàkk ki ñaan am réewam si yaayam mm-hmm. te man ku bëgg sa yaay dama lay bëgg man sama yaay laa am mm-hmm. ndax kër ga barag la courant ñëwagul ndox ñëwagul mer bi daa mbana ba sonn mm-hmm. sengee daa bënn fu mel nii te nawet bi ñëw na kon man ku bëgg sa yaay rek am sa teraanga yéene ko sa yaay rek man dama lay bëgg waaw mais est-ce que depuis bi nga amee victoire sa combat est-ce que promoteurs yi ñu ngi lay seet si di la a comme jotoon xew manifestation yi fi jaar yooyu noonu duñ ñemee wax ni quoi. Mm-hmm. mais làmb ji dimanche samedi la war a démarrer ñoo ngi ñaal Papa Boy Djiné suñu borom defal ko ndam. Mm-hmm. Modou Sa Jaxaay Alioune Seye Junior ñu war a bëre ñoo ngi leen ñaan suñu borom may leen ndami seddu guy. Mm-hmm. ndax ñooy mère relation écurie bi quoi ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax waaw. mais mu am loo xamante ne dafa ñu dafa jaaxal ñu bëri écurie Waalo écurie Waalo dafa am benn particularité. waaw mooy dañuy gis si làmb yi écurie Waalo ñoom bu ñu ñëwee si làmb bu ñu sumee ko dañuy xam ne ñii dañuy xam ne ñii dañoo pare seen secret yéen waa écurie Walo lan la parce que dañuy gisaguñu bokk si lamb ji écurie waa écurie Walo ñëw sumeeku ñu ne acam seen secret la waaw dañoo am patron yi ñàkk client ku si mel ne Aline Sey 2 du chaque jour moo ngi fa day teew di si booy yi bu ko neexoon mu ne mbër mag la di toog këram waaye def ko kon kooku chaque jour dañ koy ñaanal suñu borom defal ko ko taraanga ji yëpp ji mbër yi am mhm. yàlla na ko suñu borom defal Aline mu am ko mhm. waaw ku ci melni la de guerre 2 tamit day sonn ci ñun bu amé combat dañuy préparer matinal bi Lac de guerre suñu patron to bu ko neexoon mu ne mbërum mag la du ko ci fekk dañuy teg lu metti limi muy bobu lañuy la dañuy teg lu metti métti la de guerre dañ koy yé 5 heures du matin mu japp ñu entraînement lañu bañuy bëgg dé dee teg lu kon ñong koy sante du ko gërëm ci côté bobu kon mbër mu ndaw mais xass mbër magam rek da nga da nga xamul njëriñam moo tax ñun ñu taxaw fi di xalab suñu mbëri mag suñu mbëri mag ñoy jinn ñun ñu leen mënd di sante mo tax kon du mëna taxaw fi di critiquer kenn mm-hmm. wa kon ñoy sante ku ci melni la de Guiers 2 bu baax suñu course Arouna Sall. Liiru Diagne da ciy jàpp bu baax a baax liiru. si États-Unis da ciy jàpp bu baax naan la iPhone bi maa ngi koy xaar. dañ ciy jàpp ñoom di ñu teg lu mel suñu course Arouna Sall Zilba. ëmb di maam ñooñu bu ñu amee combat ñooñu gën a bëgg combat bi. heure bu ne la ñuy yee ñuy dem. entraînement grandé tout kon nag loolu loolu may secret rek. ak ak yeneen te jàmm nag. surtout mais Thiatou Walo kan mooy kan mooy idole am ci làmb. idole xoolal ki ma la jox rek <laughs> non non loolu yow yaa koy wax. <laughs> bu dee bëre moom maa ngi Alioune Seye 2 moom si bëre. Mhm. waaye bu dee géew bi moom ni mu loolu laay def de ma may kenn dara rëq ba nga saf sap waaw. pour pourquoi pourquoi pourquoi Modou Lo nekk sa référence. bu dee bëre. Mhm. Alioune Seye 2 waaye bu dee comme dugg si géew bi yëngal mu yëngu rek bañ a may mbër mu nooy moom. Mhm. waaw jigéen Modou lool laa fa yor moom du ma may kenn mu nooy du ma entraîné bay bëgg a dee nit bañ nit mu xalaat te xam naa coonee ma daj waaw. mais tay euh, tay actuellement ni bu fekkoon dañ lay dañ lay wax euh, euh dañ la doon proposer adversaire parce que actuellement la gis nañ adversaire yi nga xamanteni euh gaay ñi ngi leen ñi ñi ñi ngi wax tay ban adversaire nga gis ni ak ñaar sen sen sen seen diggante làmb la non man man mom bu may ñaan chance kenn rek la fi am ku may ñaan ti Tidiane fay à part ça sama morom defu ñu fa lu mu fi defu ti ah. Tidiane fay rek la taxaw nako may ma chance way à part ti Tidiane fay amul benn non caat sama benn morom may tax làmb eh, eh, bu ñu wax Tidiane Faye caat caat caat xoolaatal keneen waaw caat sa Tidiane Faye tamit du mag non mag Tidiane Faye di entraîné guddeeg bëccëg <laughs> ah jógee si mag si niil kéwal ba bawal kéwal ba bawal ma fu Tidiane Faye zéro ko bëreeg moom mag si niil moom nga ma mag entre ma favorisul mag de. xalal ya, ki caa kii entre na Fabrizio mais yak ko xale bi deug Pikine tu combat poko la muy eh, kat nit ñi nga wax rek man aw xaritu mbeur ñepp lay beurel man yak poko la du combat. xana déggoo la aw xaritu mbeur man caatu wal ñepp lay beurel sama yaay daa war a dëkk si bu dëkk ci airpris nak moom xaritu mbeur aw xaritu mbeur de ay diw mi sama xarit la jéene. aw xaritu mbeur man caat bu waalo ñëpp laay bëreel. sama teranga la. pare nga yak poko la déggoo aw déggoo Tidiane fay man chat bu Waalo laay ñaan sens way a part ça mbër bu ci amateur bëgg lamb ji na ma Thiat bu walo nga sét sama ménageur Abdoulaye ndjay ñu waxal wodamay bëre aw ma xaritu mbër bu yow suñu kër dënd kon eh, kon eh, kon yeen yeen yeen promoteur yi nga xamanteni ha ah yéenay tegg lamb yi ha ah, man gis na combat chat bu walo ak Pokola lool mom combat la bo xamanteni yar na ha ah mu nekk derby pigin ak gey way na xamna ne lool liiru yaan dina ci dina ci ah dina ci kontaan ñukoy nuyu bu baax baax mom vraiment gis nañ taxawaay bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy taxawee mbëru géewaay ndaxte yaa naa képp koo xamante ne géewaay nga dëkk rek am nga fierté ci moom di leen fàttali yéen a noo gisee combat yi nga xamante ne actuellement ne commencé na taxaw parce que ñi ngi jot léegi-léegi information ñuy wax ne combat ki nga xamante ne moom mooy euh, Eumeu Sène ak euh, Tapha Tine ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa euh, Albourakh production taxawal na ko noo gisee combat waaw loolu lamb la VIP ma juumul ñoom ñaar ñooñu kas ñoo bëréwul ñoo dajeegu la ah. mhm. waaw yéen na maana te làmb ju neex la làmb yi dafa gëj am combat jànk ah. ay revanche yi booy xool la combat ma mhm. seen bu dee moog Tapha taxaw na tamit ñoo ñoo fi combat jànk ah. Mhm. gis naa am combat jànk koo gis bëri naa sa morom benn war a ñaar yaa na. mais blessure en tant que mbër surtout sportif. waaw blessure parce que ñu gis tey cas bi nga xamante ne moom mooy cas Ama Baldé ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux surtout Ama Baldé bi nga xamante ne mën nañu wax ne toog na 5 ans pratiquement blessure yooyu di dal mbër wala jafe yooyu en tant que loolu lu mu leen di def en tant mbër làmb hmm. ndax mbër mi pere combat wax dëgg fa yàlla bu sañoon combat ni méttee dem ñàllu sëriñ fay xaalisam hmm. bu sañoon day dem bëri ji coono ji wàcc ko hmm. su daa ma bale mu toog 4 ans bëri bu sañoon day bëri mu wàcc ko blessure moom mën nga di bëri mbër sax mu am yéene pour may la contact bi mbëkk la wala mu dëkk mu jël sa tànk nga def faux pas wala yooyu ndogal yooyu lay ñëwee quoi. Mm-hmm. waaw wala nga chargé benn poids ab dis wàcc ci sa yaram bu tàngee doo xam ne da ngay ji da ngay dem ba yegg mu doog laa jàpp ba léegi si genre yooyu lay dikk quoi waaye kan kan comme nii nii nii nii nii mm-hmm. ndogal lay doon daal si mbër quoi waaw. Mm-hmm. mais mais mais mais man bëgg naa boo fi jógee parce que xam naa ni damay damay lancer appel Pape Sarr ah comme promoteur nga bëgg naa combat Thiat bu Waalo parce que Thiat bu moom koo xam ni du aréeral mbër. bëgg naa combat Thiat bu ak Pokola loolu combat la boo xamante ne moom xam naa ne incha allah moom stade day fees del del del Pape Sarr yow loolu man maa ngi la koy wax te xam naa ne incha allah euh, di nga si di nga si taxaw ndaxte macha allah ñaari xale la ñi nga xamante ni euh, ku tëgg seen combat da nga gis combat boo xamante yaa ku fa ñëw rek di nga di nga am mbégte bu bu baax a baax tey euh, tey yéen waa écrit Walo actuellement nii mën est-ce que mën nañ xam actuellement ni yéen yan ak yéen mbër actuellement ñoo fam combat. waaw suñu papa Alioune am combat. suñu papa la de guerre numéro 2 am na combat. waaw Alioune Sèye am na combat ñu ngi koy ñaanal suñu borom ko ndam. la 15 la war a bëre. Mourou Sa Jaxaay am na combat ñu koy ñaanal tamit suñu borom defal ko ndam. beneen muur bi am na combat tamit ñoo koy ñaan suñu borom defal ko ndam. Papa Boy Djiné tamit am na combat. Papa Boy Djiné ak ak Modou ñooy bëri la huit. Modou Sa Diakhaye ak Papa ji ñooy bëri la quinze kon ñoo ñaanal ñooñu suñu suñu borom defal la ndam. waa yëpp ñu ñaanal Papa Boy Djiné suñu borom ko ndam. moo ngi moo ngi daj ay coono moo ngi lu ko war yàlla nag mooy maye kon dañuy ñaan yàlla mu koy muy maye mu may ko ndax lu ko war moo ngi si kon na ko ñëpp ñaanal waaw na ko ñëpp ñaanal na ko ñëpp ñaanal suñu borom defal ko ndam papa le huit yàlla mi maye ñu ngi koy ñaan mu may mu may ko ndam ndax yàlla dañ sañ kon ñoo ngi ñaan yàlla may papa boo jine ndam ak moodu bi si bëre mu wàlle ko ñaar ñu si des aa mais tey noo gisee association des lutteurs en activité est-ce que yow ngi ciy gis sa bopp man daal li ma la wax rek ku ku liggéey ba yegg ñu woo rek man fu mu damaa bëgg a liggéey ba yegg rek. boo yeggee nga xamante ne yéenay bëri association nga xamante ne actuellement. nii mooy li ma la wax rek ku liggéey rek ñu woo la si yooyu moo tax nii boo liggéey rek ñu la nga nekk. sa liggéey yow si association des lutteurs nii boo leer rek dañ lay jëlee fi yóbbu la la mag noonu la rek nay leer rek ku liggéey ñu woo man fa laa teg sama bët rek. ah man gëm-gëm bi maam mooy liggéey ku yegg yegg na ku xas ba yegg moom lu ñuy waxati nii nekk si suuf moom di xaañ ko nekk sa kaw moom sonal sa bopp la rek mhm. waaw man dama bëgg fekk nekk si kaw ba par doog liggéenti yeneen li ñuy liggéenti mhm. waaw mhm. mais tey yaa ngi wax Tidiane Faye kese mais est ce que Tidiane rek moom moom mooy sa cible parce que na yeneen la am ko ma fee ñaan ñaan sax part moom ban ka laa ñaan sax sama ban naa ko bëri naa ay grand gën a tàng si laa